kérok samedi express diwaanu Mbour da fam lu fa xaw keroog samedi ki bu doy euh quartier ndaje quartier ndaje Mbour la nek da fam ben boy bo xam ne 19 ans la am carreleur la de profession mo doon xuloog pas pa boo am 70 ans buy liggéey service des pêches bu Mbour ba boy bi dóor ko pa bi hmm. Mbour quartier ndaje ci li ñu jotagum ci histoire bi. Mhm. lu lu lu lu ko jarul moo ko jur. ci ni ñu waxee mooy xale bi taxaw na buntu kër paa bi paa bi ñu ne ko jugal sama buntu kër. Mhm. booy bi bañ ne du jóg paa bi ñëw di wax ak moom. Mhm. booy bi dóor ko mu des ci loxo. ay la loolu lañ am ci version bi pour le moment. ay di nga xam fu muy commencé de. léegi nag xale bi jamono ji moom. mi nga ñu tey ci police bu jàmm gën. jàmm gën deux ci info yu ñu am également. am nag bu ma doon xalaas gi bu doon sama yoonanti. Mhm. dafa am loo xam ni bëgg naa di waxtaanee ko ci revue de presse bi laa ko déggee. mooy. Mhm. jaaykatu dorog bu nu war a jàpp waa ko ne police doo ko fi jàppe man loolu dama war a xam loolu lu ñu war a euh, saxal la wala loolu lan la man man man man yëfi El Chapo rek laa gis fii fii El El Chapo rek laa fi gis. xaw ma lu tax ñu def ko de. Hmm. mais bu ko police fajul. Hmm. dina amaat. jaaykatu drogue ñu jàpp ko waa ko mi nekk kenn du ko yóbbu. xam nga ko sax dealer lañ wax. Hmm. ñu jàpp ko war ko yóbbu ci yoon xool ndax liñ koy toppee moo ko defam déet. bu fekkee moo ko def yoon tege ci kawam bu fekkee defu ko yoon bàyyi ko. ñu dem di ko jàpp. waa quartier ba am ñu jug ci quartier ba. am ñu jug quoi voilà ne du fi am. danañ hmm. Pikine à Fiala mais li ma lay wax mooy bu ko police fajul dana fi amaat. jërëjëf Abdoulaye nee na est-ce que du doon jox paay dépense. Ah. ak lu ci mën di xew moom. sa ah, euh, ah, waay fii du Mexique merci beaucoup. fii du Colombie du Mexique. gis nga fawu dañuy gën a jox cër yoon. Hmm. surtout su ma waxee nag mooy justice beeg takk der yeeg. Hmm. lu mu ci mënti doon. comme ñoom lañ fi teg pour ñu saytu yoon. nañ leen jox cër li ma la wax fii bu ko police fajul dana amaat ci beneen. ko mais jaay fii man mais te El Chapo ngay xëy di gis lu la bett. El Chapo Guzman. Ah, mais kenn mës a gis lu xam nga chaque jour dañuy wax ne damay dégg na population bi di am habitude di dénoncer. Hmm. waaw léegi yow dénoncé too. ki feeñ ñu koy jàpp nga ne du dem. léegi ci man réew la ñu nekk. mooy comme li ñu ñuy wax nii bu ngeen gisee boutiquier bu nekk ci koñ bu bañee appliquer prix yu bees yi dénoncé leen ko. Hmm. koñ boo fi dugg boutique boo fa dem ku ne am na fa carnet. da nga leb de amee nga ko de. ku ne am nga fa carnet kooku kan moo koy dénoncé. moo koy dénoncé mais Ndiaye kii jaay na xam ni. Hmm. papaam ak yaayam ci consommateur yi la ñu bokk te ñoom ñoo doon kaas naan euh, suñu dund gi dafa cher ak lekk gi dafa cher nañu am compréhension xam ni. Hmm. fépp mënta baax. waaw d'accord mais ay visites inopinées la ñu war di def. maanaam. bette maanaam di bette di